Sengold, Gold, une nouvelle vision de la bijouterie. Oh royal, C'est assez Équipez-vous à petit prix.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

à 19h sur la chaîne YouTube Marodi TV. Nabou Nabou yaa daan waaw ci loo nekk maa ngi lay woo sax mais déggoo ma alhamdulilah yaa ci jàmm jàmm rek dama laa gëj a gis si xew yi mbaat dara ah nekk ci sama tey bopp rek wax nga dëgg loolu moo tax loolu rek la du leneen mais yow moom xew boo taxawul baaxul waaw loolu de am na moom sa xew doom bi mbaa yaa koy waaj la 14 waaw wax nga dëgg sama doom bu jigéen bi sama jigéen bi waaw la 14 la xew bi incha allah. Ah. waaw ndax yow xew boo taxawul baaxul. waa loolu war naa mën a ne ba mu baax wax dëgg yàlla. war naa mën a ne. waaw ah, jeex na ndax maay na bu géey. montre baax yëpp ñoo bokk. ñoo ah, ko jeex na taal gis nga. nga sa xol sedd nag. xam ne bés bi. Mhm. du ma ci silib caayalaaj. dëgg la maa la wax nii. na bu defal comme dab rek. cim jeex na sax waaw jeex na tàkk na bu. maa ngi koy pare. jeex na tàkk. su yombul. waay lay la laaw. salaamaaleykum. mère Diène naa def yaa ngi ci jàmm naka yi tey waaye <laughs> gis fi ma génn ci chef Thiam dama garaaw. <laughs> mon yesu suñu borom ginaaw bi mu dogalee suñu sëy man ak yow ci aras booleew ci ne dañoo wara am dom par force ndax dom du contrat bonus la rek mën na ñëw comme mën na ñëw erreur bi ñu di ko xaar ndax bu ñuy di ko xaar te gisuñu ko mën nañu gaañ te yaakaar naa ni loolu moom moo nekk di la bëgg dal nii Khalil li nga wax lépp dëgg la mais dafa fekk ni que neexul ci xol chaque mois nga le même résultat bi on va faire trois ans de mariage que fausse couche sax pour moi. en plus. oui ma libère-toi en plus quoi. Sénégal la ñu nekk nous ñu commencé maa kàmbal. mais est-ce que loolu sa faute là? gis nga ñàkk doom ci coupe, on indexe toujours la femme pas l'homme. ñàkk doom bi ñu am doom ni mën na nekk ci yow ko mën na nekk ci man. mais yow amoo pression parce que góor nga. man dama gëm yàlla xam ne doom bi heure bu ko yàlla tuddee dina ñëw te nekkul lu may xaar ndax yaa ngi sama wet maa ngi lay gis sama xel mi ngi dal dama bëgg nga wóolu ma. mosu fee jóg. loolu laa bëggoon dégg. wuy ma nañu ndékki balaa muy sedd. est xam nga leen. Hmm. yow laa fas yéene de soo de. yaa ngi soog wax lu ma neex est xam nga maa ngi soog a gëm dëggantaan Ibrahima Xalilullah càmm biñ ma tuddee may xaritu yàlla yu neex yi may wax nii xam di doon xaritu yàlla bu wóor. nga ngay ma. ñun de sax day jël dama ma dégg moom koy abal abal abal waa yow lay naaw xam nga ne juboo góor am muy daw di fërërëri rek xamal ni yow juboo jub ma ci lan nabu dama xam am nga sa ma yor sama bos doo ci yem waaw sa ndig da laa la noonu laaj ñu mu def ba légui sa va tane nga. tan na tay kañ mom yow am naa jàmm tuuti. fo ma laalal la tuuti massage. hmm waaw mu bayyi waaw fi mu ne nii de moom sant na ba dum ko bëgg nak <laughs> ma la raw de. lii la la def ba bel cham borom de ni waas ah waye xew-xew am na de Bakir. xew-xew ma jamm xew-xew bu reey reey reey dañ ma hmm. tuuté doom. la tuuté doom. waaw yow mi dañ maa tuddee doom man mii na bu dee kooku dala koy dala koy waaj a wala daf daf la ko fa pare wala ñoom dañoo ngénte pare soog a wala yow ki la xool ba nga doy ko mu ne la yow laay tuddee sama doom ah waa léegi loolu luñ ciy ah kooku dafa am yéene dafa am yéene tuddee alors kay rafet na yow bakir ci am dañ maa warta tuddee doom yow i ñaan nga de waaye de dama xam ne ki la ko kañ moom ah dina xool bu baax kañ xanaa juróom-ñaari jikko yi ah samay jikko dafa baaxul eh defal ndànk waxuma loolu yow ku la xool ne sa jikko baaxul sa jikko kay baax jikko yi rafet nga amee yow mi <laughs> jikko yi rafet nga amé waaye dama xamné lire bi buñ ko tegee di ko tudd imaam bi tok ñëpp toog euh, jooyu met la nar joy oh oh oh oh nit ñi foog ne lu né wat gee metté yooyu fekk or bi lay laaj laahi dina jël jikko bobu ci yow de ah légui daal dang may saboté loolu lañ yow looloo nek sama diggante yow sabotage saboté dang may saboté kay saboté wala di dama lay wax rek waaw kay fofu nga japp nonu noy na nepp a propos or bobu nak mom loolu la bëgg ñu waxtaane ko tay suba la xew mi takal ma ci bu bes tak nak defal ndank nak comme fofu noy na nak defal ndank jël ci yi nak yi nekk fi ci armoire bi nga tak ci man yi ma tak ba paré naa ko takkaat yow ba ki bay njëriñ yow yow lan moy sa devoir ci man yow xol fan yi man dama liggéey sama ndig bi maa ngi koy jàmbat di xalat man ya ma tak yaay sama jëkër ya ma war topato ya wara xol li war ci man nga diko def loolu yeb deug la waye yow dafa melni yow ya ma tak yow ah ah yow ni ngay defanteeg man nii. yow nag déggoon naa soskat nga waaye tey laa koy confirmer. ne sosalu ma la dañuy waxtaan te tey dama bëgg ñu waxtaan maa ngi yow ci njëkk ak teraanga nga déglu ma yow xam nga ne li nga tàmbale woon boo ko kon woon rek ñu ñu ñu déggoo. damaa waxtaanul Bakir Thiam da nga bëri wax. dama ne balaa ngoon nag ma indil or bi fa ak yow. ngay ko fay yëpp. Insa. ça va papa. la euh, gor moom li ko war rek la xam te doomu tëgg piir daa baaxoo doon gor góor-góor rek dina baax. dëgg lii lan la. papa Khalil moom ko jox. eh waxuma loolu ma ne pour lii lan la laa wax. prospectus information campus France. xam nga la laa la yëgal dama ni nga jàng laa wax nga dagal ma bag bi dégg nga baax li ma la wax yii bu ko jéem a sa bopp xale nag li may defam moom xam naa ko. mais góor gi ngi wax na ma da nga waxon da nga bëgg a ñëw bijouterie pour xol liggéey bi ni mi demee ak yow. wax nañ ci man ak mom mais dama ko ni na ci waxtaan ak yow ak sadiq ba paré ma xol seen xalaat lan la. ande <laughs> ah, déedéet kañ amul sadiq amu ci paro loolu kañ man nga ci waxal ne fofu man ma fa ne te man lu ma wax loolu la nit ñi wara def waye man dama xam ne yow sa liggéey rek liggéeyam intellectuel ah munoo ko yow lan ngay suivre fe nga nekkon sax. ingénieur financier. en ah, finance mom nga doon suivre fofu ah yow mi karak nga loolu walum xaalis la te xaalis mom bi a wax xel mënut a ñaar te xaas mo bokay calculer mom sa xel dafa wara dal non pourtant si suma mais toute organisation de dina mëna bolé ñaar yi. ñii mani fé affaire or la te affaire jinné la yaa ngi dégg yow dal defal li ma la wax bu la pa bi laajee né ko yow né nga nek sa liggéey bop mo la gënal. non dal nga ko gisé waaw lool li ma wax ni mo am dé <laughs> yow defal li ma la rek doo ko rëccu de. yow de doo ko rëccu mukk. ana khalil xalitam yow lay waxal que ça soit la dernière fois. may ñëw fekk sama njaboot nga am lenn looy jéem si moom lu bokk la li ma soxla. mais grand lan moo xew. lan la yow. xamoo lan la wax bag laa ko sant bis bu ko amee daf may fekk si wala daf ñuy fekk si ñun tëgg yi. si sunu cosaan bu fekkee yow da ngaa jaay sa cosaan kooku yow la concerné bul si boole sama njaboot. grand sa njaboot sama njaboot la instant sama doom la te dama gis ne nit ku intelligent la. te bu ma ko jàppalee dina dem loolu rek laa ci jug. ma jàppaloo ma la defarloo ma la puusloo ma la paasloo ma la yow doo référence doo royukaay. Ah. doo nit ku baax. da nga dem bitim réew jaay fa sa cosaan ak sa aada. mujj cuub sa drapo takk fa ku kenn xamul. Hmm? ngeen ñëw ñëw di somal sonal ay sii sii. grand ma la ko. grand wàcc sa aada weesuwul nga takk sa mbokk faale woo ko konte woo ko toppatoo woo ko. dangay borom këram danga am ay warteef yoo warteef. Eh, man du ma sam morom buy wax ak yow nga may tontu de man sa mag laa bu may waxatee ak yow na nga sëgg moo xub bu ma waxatee nga tontu ma dama lay tuuma léegi. Ah. grand du ma eh. permettre kenn muy wax ci faa ci noppi. Eh. sa jabar lan tudd ngay naaw di fëtfëti. man sa mag laa bu may waxatee ak yow na nga sëgg. dëgg day am jom. yow Sadikh ñàkk nga kersa booy xanaa gisoo man mi toog ah? li jàmm la. yow boo amee ñu yóbbu sa doom France doo sant sa dox bu tàlli yow waxal sa jëkkër moo jën yow man foog magum jëm am projet kuma ma nga xam yow bila yaay mbam rek xali eh yow man man da nga eh, lo sa mang lay wax bu ko bu ko wuyu ki yang koy dimbali bëggul nga dimbali ko loolu dafa jar li ngeen def nii ah soyons calme ne répondez pas à la provocation il faut être digne et zen li ma jam la yeen na kër gi su meek fu jot na de xaar ana ana sa di dara coow la entre frère mënul ñàkk ci kër mais terewul li ñuy séq ñu koy séq. kon ñooñu ni nga mënee nekk gaynde. sama gaynde da yaakaar yow rek yaa xam mun naa génn feneen ci gaynde de nii daa nga jàpp ak man bu ma yéegee rek nga wàcceem <laughs> dina baax. <laughs> soxna si ndaw si day sangu hmm. day diw day takk. yaay mën naa la laaj man mm-hmm. effort yi may def yëpp sama jàng di sacrifié wu est ce que jàng na tax nga loolu yaay man sama papa comprendre ma ko intéressé wul benn yoon ci samay mbir tey papa xale jël initiative jàppale ma dem France mu bëgg ma ko xañ saa li nga wax rëy na de saa bu intérêt wul say mbir noonu noo ko mën a waxee mu fayal sa jàng ba nga toll ni nga toll nii ak lim daj sa jàng yëpp buy sonn ak buy liggéey yéen yéen a tax mais ça da nga daan réfléchir nag te àndoon na ak dal del waxee xel te bañ a waxee xol léegi waxal France bi la nga da nga bëgg dem France bu bëgg dem France nga ko ñu lijjanti ko. Eh, man ay waxu France sax intéressé wu. bu boo dem France say morom jàngi. dem France yow kasi non loolu mënuma jàng lañ la sant protection bu laajee man mii sa yaay maa la war a protéger. yaay may sa taw su ma ko deful kan moo koy def. bul fàtte ne bu soo ngi fi xam nga ne moom làmmiñ bi damm ko ci poosam amul doole mais tontu rek la ma pare dama terminer say exercice mais on dirait que sa xew bi bàyyeegu la ba léegi de. sama xew bi nan la may bàyyee yow ci ko ne la famille Thiam baabal rek seen xew dara du yomb du ñu doyal xew moo tax xoolal mooy loolu. en tout cas am na niveau. niou ba ngay wax ndànk fa deub dëkk bi bam mok mokk yoo gis nga fa nim mu xana ma ah mais nag ku ma Khalil momay may sey sëy dama ko mais non arrête il y a d'autres sources de bonheur dans la vie par exemple ton travail c'est lié. c'est vrai lu gis nga aduna du ñep ñoo am chance su exercer sa passion liguey li nga bëgg dañuy liguey rek pour euh, defal suñu bop amal suñu bop bañ a dépendre de benn góor loolu rek la sans plus. en fait moi ce que je veux dire moi, tout le monde part un jour parce que life bi est éphémère. oui c'est vrai de toute façon yow yëpp da nga am liggéey rek <laughs> tu as déménagé subitement de toute façon défaillante tu m'as lâché. <laughs> c'est vrai tu as raison Je koñ bi manqué na ma li ngay wax nii rek maa commencé dem ay images di fàttaliku lu bëri. lu c'est vrai yaa ngi que bi may organiser soirée terrasse bi. fàtte <laughs> fàtte dafay xaj. Tu nga demandé autorisation ñu may Je ko. ma yaakaar ci nekk organiser invité Papa ñëw rek couper courant yi. déet dañoo commencé 30 minutes mu couper courant mais loolu ku ma ko xoon du ma ko mer naa une semaine il a fallu que mu jëndal ma billet ma dem pour mu mën a pour yow mii <laughs> vraie princesse à son papa.

<laughs> bëggan la yes fi mom ko wax li wax la ca dess ana Babs. yow lan mo tax nga ya yak waxtaan mbam bobu lu fi indi ay waxam. ya ngi mer de ndaysan yak Babs ko hmm. couple rafet gën estilé koñ bi gën amé ko. do mu càmm bi ak Babs xam nak premier amu dafa neex ba pare couple bi dafa rafet koñ bi amé moo tax amul mucc sama digganteeg Babs la xamee ne cat day topp nit. aywa yaa koy dégg. yow danga ma xamé ñak fayda fan lay déggee Babs. ah fulla fayda chamba baabe dama càmm li laa xam si waaye dama lay laaj rek laaj aayu. mais yow doo changé. wa dis-moi noy donné sa promotion auditrice bi. personnalité. Mm-hmm. fulla.

2017 dal punch Punch. Punch, ak punch C'est une série Babel héritage couture showroom Bochamniken Moussouko Augusti Sénégal 00221 221 77 643 859. Ou wala 3 héritage couture l'héritage de la mode Marodi propose Babel sur 64 épisodes sur la TFM pendant 8 mois

ñaar nit ñu bokk sax lan ngeen di nekk fi na da ngeen di jema tongo lo dafa xej fi bu ngeen defé loolu jigeen ñu nu ñuy def hmm? loolu xeju ci kër gi ma bëgg ngeen joxante loxo ngeen baalante ak hmm, yéen a ngi bëgg a de baxna loloy deug sax instant bala nga jël ci moom ben décision war nga waxtaan ak bayam nak dom dafa sax ci xol te fokk na xam ngeen ci dara léegi ngeen xam ci dara yeen ñaar ñi du deug ndax fami ngi ni nek en état hmm? ah oui hakai daa amba on oh, va eh, tetap, tata macha allah. ayugoo leen lool. déedéet. waa fa. kii xoolal ko waxuma dara yow ma préparé. ah yow de xam nga ni ñi ay tubaab yi lu ne surprise la ñuy wax surprise surprise. kii de nee fi. eh namun tu la fermes ah. ah. seetlu naa bi ñu ñëwee ci kër gi ba man ak sama jabar mayuloo loko jam mayuloo loko salam eh. nga koy bundu xataal guddeeg bëccëg maa ci sama bët bi. xale lan la. dafa am lu may

ci soo ba léegi kër gi mu yëngoo yaa ko yëngal yow kii tubaab la français la moom lamiñam lay lay lay mottali nga topp ko rek bañ la doo ko bàyyi li yëpp yaa ko fi indi ah. ok léegi yow wax nga ak moom amoo li nga bëgg man nga ko bëgg a xëpp. man damaa xool ku ma xëpp ku ma xëppul yow la yow la nga daan ay man nga koy xëpp lan la danga may door cest dire abal ma. comme man suba ba léegi maa ngi wax te déggulee ma abal ma. waaw waaw ah. góor wax ma góor wax. naa am loo ci wax. ah déggal portugais bi mo da xam nga ni danga ñoo rax bokkoo ci ñun ah kontaan naa ci yow de goor da koy nuru way yow kenn du yow. bala ma dé mu naan mooy kilifa ba fekk njogo caam njoge man naay kilifa kër gi mel ne perroquet ku jébbi. t'inquiète pas, ça va. Je suis vraiment désolé. Tu n'as pas à l'être. T'en fais pas pour moi. C'est sûr. Ce joy nga joy fille, ça veut dire que les maintenant pas. J'ai juste pleuré mon soul et ça m'a permis d'être plus légère. OK. Cette fois c'est décidé en fait. Sama papa bu ñëwé dina ko carrément né ko dañuy génn appartement. Et puis désolé vraiment tu mais ma mais là nabu moom daf ma je piqûre amatuma xaar. écoute-moi mon cœur je préfère ñu toog ci kër a déménager. Mani je préfère ñu toog ci kër déménager qu'on reste avec toute la famille. <laughs> oui ma je sais que la xam naa da ngay bañ ko la ŋàññe wala affaire mais t'en fais pas C'est de ngi ni dafa appartement ta jabar la ngay jabar. mais ce n'est pas la même chose bokkul c'est-à-dire aw mo ngi ci kër gi di sëy tay jii nii mënuma jékki saay ne man damay dem beewu ji ak yow. mais lolou waxtan nañ ci man ak yow amul beru mais. yow déjà fils à maman nga ñu ne way dit encore nga nek fils à papa suma le café kafee xam nga duma du man ngay wax fils à parents yow. waaw. Yo, what happened? Écoute, Banal. naa la Lou xam la moo lay inquiété si li ma la wax pour ñu toog kaaga dangay ragal ma dugg ci affaire de défense xam nga ni maa sut loolu donc tu n'as pas à t'en faire. t'inquiète pas man xam naa ne t'es une grande dame xam naa ne yooyu doo ci dugg te man bëgg naa la bëgg boo xamante ne lépp loo xalaat balaa nga koy wax sama defaral la ko. la puisque hmm? Hmm. sa. <laughs> Nabou yow lan la. Nabou du dara. li jot a xew fii sànq laa lay wax. Nabou li nga def sànq noo ko mënee. ah Nabou. lu ma def. li nga def ni rafetul dara te ciowul kër yi sew yi ni ci kër famille yi baaxul day delloo kër gannaaw. yow Bakir Thiam rëy nga làmmiñ te mën a wax yow dama xam ni ñaari jeeg yuy def seeni mbir di def seeni yëf di defante lan moo ci yoonu góor ba ngay ubbi sa mi mel ni rajo bu yàqu. dégg ma ko wax waaye man damay wax parce que xale dañuy xool ci man te yow fii xam nga ne à part Pa njugo man mii la yow man nga war a déglu ah. kilifa day dox doxu ni kilifa. kilifa day xam boppam yow kilifa nga yow sa dara matul nga naan kilifa nga. na bëgg nga ne man sama dara matul. eh dimbali ma waxewu ma ko sens boobu man sa yu fi yàq yooyu nag ma ci génne dégg nga li ma la wax yàq nga torop. teel hmm. nga cee génn de. fene yàlla mën na laa xañ lépp. <laughs> ay bu la temps umi jàppee xoolal <laughs> yow yaaya sama xaliloo def si moom li tax ma nopp ko nag donc maman umu na nangu rek xam naa ne moom ñeme nga lu xotteeku taragaloo dara waaye danga fay fekk ku la gën a dee nag nabu moo ngay wax yëg naa la def démb de yëg naa lépp nabu daf ma réere en tout cas raay raayal da ngay door a lay metti ak lay naqar bu ko kenn xamal deg na la bu baax <laughs> te xola bul am dara loy ragal na bu xamna fi makoy koy yow mi nak yaa fi jappale man ci am Babel. yow am Babel Demba Thiam borom nee ni waas borom junni yaa ma neex dama cee war a jox sax na moyu balis bi biir. damaa tàng <laughs> jër. ma maa yëngal xam ngeen ba ko tuddé nga ma am bu la dara nak xola tay junni dama la jappale jeggu valide validé baa ngi nii. gis nga da ya may jàppale ci génn ak may def ci la bokku do lo bëgg dama la ko ci jàppale. baadu. Soweto Soweto sama gàllankoor eh eh eh. Sadio soxla woon de balaa ngaa dem. Africa Africa sa soxla parce que xawna ya xam ci trop. ah du ci jojo rek nga jëm da ko xalé la la wara wax. rek kan moy rek jojo aw sax do yërëm sa bop gis nga buma la waxe la mo tax jojo du rek da ngay sul sa bop lo ba lo def ba même ma quelques minutes yi ma la ñaan. baralal sa wax may dem. affaire ñaan daal ma ne ko Issa rek laa lay doy. Issa dafa soxla sa comportement wu ni mu manque de confiance la ko andil te de Issa mooy sa taaw moo ki nga njëkk a gis ci doom te doom bu góor papaam référence am la man mën naa comprendre sa comportement ak man ok mën supporter mais mën nga wax li ngay wax benn yoon nga bàyyi wër-wër la. Eh, Issa bu dee école la mu ngi ciy góorgóorlu ay notam macha allah lenn rek moo ci tam muy manque de confiance gi mu am te yow muy wéeruwaayam rek yaa ci man taxaw man ma la leneen de sa dex loolu rek laa la doon doyee. pare nga loolu nga ma doon wax gis nga naafeq mi ngi tàmbali si jaxase papa ak doom. te yow ku la xool xam ne vrai naa fex nga te boo muuroo sëgg nag ku la gis jàpp ne ku baax nga awa seex yow yow yow doo nit xanaa tay nga mën a taxaw di ma wax affaire attention mais instant kan moo ko fayal jàng moom yegg si fii kan moo koy jox mu lekk awa seex instant li may def si moom dafa si moom kaar bi li ma mën pour moom maa ngi koy def affaire de bëgg ak bañ si sa bopp bi lay jógee bu demee si moom ndax xam naa ne yemoo si man waaye dama bëgg nga regle nga génn si yi nga nekk yow jaxase nga ma sax xamatuma sax la laa def yàq nga sama journée bi yëpp waaye soof nga ma trop yow. gay baye bal ko bi nga ñew ñewal lay la xëy lan la ku gis ne ne nen a ay Bakir Thiam li tamit lan la cey sama waa ji Babel dem ba cham borom na ni was yow xam nga ni yow ndaw lay joj yow waaye fit bi reey wa li lan la ah li, eh tay du bësam wax Bakir Thiam teel ma fofu ratagin ratak ratat nang tantaat bu dëkka takat takaraat booy gis gis guus taj guus guus taj waaw. dara eh Bakir yéegal eh. ay yéegal eh eh Bakir yéegal eh. dangay am lu rëy eh ñëwal raaj guus guus guus guus guus guus ay rëy taj ay gis gis. nabu nabu doxal ak mom, doxal ak mom. wuraj ak gis gi taj wuraj nabu, gis gi taj nabu arrière ak moom nabu, ak gis gi taj wuraj ak gis gi taj guus guus nabu doxatal ak moom wuraj taj nii laa koy doxee xol waaye faa sa seen bi ba tey yii bi de ba sànq yow mooy sama chaîne bi nga sama yaay may dem de bi

Pipa ñaari loxo laay def comme ñëpp. ki nga xam kan benn loxoom sax du ko natt normal. ki moo yàq natt bi. madame Thiam mënoo régler te may kii jaamu lan moo tax ba mënul bokk ñaari loxo. benn loxoom sax nattu ko normal lu ne lay daj door koo jot. yee wóoru wóoru. ya? nga amee jikko yow. amoon na ngaa yabaat loolu ma wow. dugal sama yow. waaw sama Wow. Ya a ngi toog waaw. waaye yéen a ngi toog. waaw xoolu rek oyofal oh, ya, ko bëgg egg ca xew rek toj ko comme d'habitude ma la wax li def yëfi mag rek ndax xam nga ni trondo yombul te du n'importe qui nak lañuy tuddé waaw waaw ba tax na nag xolal ni la def laal sama raadu ko bu baax sama palil benen affaire la wa legi taw fa jaar nak taw jëkë juddu jëkë baax newul kenn bonam ki ma bëgg sagal ma xol ma ba ci samay diggu non defal ma fa lu reey reey reey mo def li belli nga trop ma sha allah waye chaîne bi mom suma lo la won ma ne chaîne bi sama boss la mako ko deggu ma la wax. mané chaîne bi suma ma sañ-sañ. ni ndro nak sama boss bi ma reey bo ci jaaraté ma ñuus la. ah, ah Nabou. Eh, eh, eh. waw dama lay ñuus. wayu ki fuyu yow ban audace nga am ak sañ-sañ. ba taxaw yow man ma sañse ba jekk te yow nag soxor gi ñuy wax ci yow ndeke daal laa quoi soxoru tubaab nga soxor ah yow da nga iñaan sañse may taxaw mu may accusé naan sama chère ah Nabou eh fii kenn jiimu la fi sàcc ba jiiñu ma la sàcc de faa wax la nanga ko sàcc defal naa ko mais faa yow tamit li ngay def nii du dëgg du yoon ki takk collier am di dem xewam nga ne sa sa bés la takk tubaab bi ñaata collier la defa waaw léeg-léeg jiiñu ma ko de tubaab bi defarul benn defarul ñaar defarul ñett waaye dafa fekk ni que chaîne bi mu takk sama bos la te samay initial la ci nekk FBN muy Fat bintu Ndiaye. waa léegi say initial la ci nekk may leen ma xoolal yow li ngay wax Marème kaay xool kaay tekki nga xool tekki ma balaa nga ko bee wat tekki la yow kaay tekki yow. kaay nag bala ngeen a tekki. Ah. bés bu ma ci xaw ma njaay ef xaw ma barki rasul la yow tey di jot sama. waaw yow tekkil rek tey dinaa la ba diri la ci kër gi. tekkil tekkil ba defar ndànk rek. àndal ak daal lii xam nañ ne moom sa bos la xam na yabaate woo sax yow gaawal si li ngay def man faa man damaa xamul yow loo ma yabee yow ban kanamu ñàkk fayda bu ma la woon ba ma war ma mën naa mën maa yab yow nag yaa ngi nga ne initial na FBN Fatou Bintou Ndiaye waaw ah kon kay wax ji jeex na lii yaay borom ah, lii laa lii laa wax jaarooy si la bokk déedéet non garaawul xoolal xam nga yow sama mak bu baax nga te bu nekk woon li ma ko sama yaay may dama la koy mayaat ci xol bu seddu kuy xam nga na la ñuy def bàyyi ma ci kaw xoolal la bu ko dak nga takku ba mel ni dem ci sa xew am mën naa mën naa mbakki rek rek Bakir, awas ya, buddil sama Bakir Bakir Bakir sama Bakir man moo jëndal bi Bakir jam, sama bos. sa Bakir. batay mën ne sa Bakir a mën a feccal ko rëgin gin gi caa. doxal ak gin gi bột boot dama koo bootoon sax. dëgg la kay mën naa ne. tey đúng ko.